buzz kuy gi bu bala jóg. buzz loolu ca fële ca arène nationale la. muy buzz tamit mi ngi fi. le treize le seize. ah ca yàlla ci yàlla teg loxo yàlla defal lépp ba mu baax. ci barke yonent bi. Kambaay. yaa ngi jëlee wéy dañoo jël suñu micro bi nga xool. ay bari yaa ngi ci digg teew bii. Ah. Banka. Kambaay. cinquième combat baa ngi noonu cinquième combat baa ngi noonu dox si diggante ak Kalmu Ndour Kalmu Ndour moo ñu won moo moo féete sunu droite Sélémélé numéro 2 moo nekk yi nga xamante ni mooy sunu gauche arbitre nag mi laaj ay siisam wax na leen làmb namm ak lu làmb ñoom ñaara ngi noonu sifle na combat ba Sélémélé numéro 2 ak Calma Ndour ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne nag mbaru séeréer nga tuddee sa bopp Calma féete droite Sélé féete gauche ñoom ñaar a ngi noonu ndeysaan tey rek premier journée li nga xamante ne mooy saison 2022 bi la ñu ànd ceeg kan Fallou Ndiaye staff bi nga xam ne moom la àndal muy Ndiaye production ndeysaan mu boole fi ay xale yu am solo grand combat bi toog dina dox si ki nga xam ne mooy jeex jàmm yee ak ki nga xamante ne mooy Ibou Afia ndeysaan ñoom ñaare ngi noonu congo amagul kurpañ amagul dara amagul ndeysaan géwél rek la ñu dégg ñu wax papa ay dem boobu la ñu dégg noonu muy way sunu papa jooju koy nuyu bu baax a baax garde normal ak fausse garde ah attention eh kalmu cokkaas na droite ca kaw wàcc ko jël selembele arrière ah attention eh kalmu congu ñor

ndaysaan ñu ngi nuyu mbokk yi waa mbokk internet yi bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye ñu ngi ñuy wàññi seen attention attention. laa ilaaha illallah tey daa déclenché mu wàcc di ko jël seen wéy émission bi mu génnaat ndaysaan kan mu nur rek daa bëgg song la bëgg. Kalmu Ndour song la bëgg Kalmu song la bëgg affaire arrêté na ko baba Ndeysaan ah attention Sélé sànni na ko sa gauche Calmou ak Sélé Ndeysaan

sànni ko droite bu dal Sélé sànni ko ko droite bu dal Calme Ndour ak Sélé Calme mi taa nañu ndeysaan ginnaaw bañ bi tee mi daawee ñëwaat ndeysaan arbitre baa ngi leen di fàttali li nga xam ne moom la règlement bi nangu moom la règlement bi bañ mi ngi laaj ay siisam arbitre bi ndeysaan ba jàpp war na ko ndomba jagat na moom ànd na mu ngi koy toore perikil ndeysaan Kalmu Ndour jàpp na Kalmu Ndur jàpp na ndeysaan Sele yi door plaqué na ko mu daanu eh, Sele daan na ko daan na ko Sele daan na ko arbitre sifflé Kalmu jël jàpp tànk du ko jël